nan lay jaar yan kanal lay jaar bu bu yóbbul leen ko juste un petit mot mais yóbbul jël avec les sénégalais dajale woon na xaalis mhm. yóbbul ko ñi nga xam te ñoo lor woon ci Rohingyas ay musulmans yu ñu doon faat foofu li ci anam bu doy waar maintenant nag vu ko effort yooyu yëpp ak récemment rek euh, Taïb Socé collecte bi ñu def mm. pour mu mm. génn mm. centaine de millions pour mu génn ci prison bi mais on peut le faire mais mhm. maintenant moom dafa invité l'état du Sénégal pour ñu gunge ko ci loolu li Pa Assane wax mënu ko def moom kese tant que amul ko amul. amul lëkkaloo c'est bien bon mais non non non il a dit moom jugul rek mu ne en Messi en Messi ne dama koy def. non il a invité l'état pour que ñu accompagner loolu ñu gérer loolu et que ñu dem. ce qui est excellent ce qui est excellent là-dessus ce qui est bien là-dessus au-delà de tout mooy maanaam. Euh, xam nga communication dafa grave. Mm-hmm. en fait Bougane a communiqué en insistance pour davantage toucher les gens maanaam ñun ñëpp ñu gën a jël conscience ci la chose ñu ngi dégg coronavirus virus ñu ngi dégg état bi nee na du leen jëli dina leen jëli quand un Sénégalais di dixit gars yi il faut ñu dem dimbali ñi dafay yee dara si ñun mhm. et ça c'est magnifique Justement. mais nguuru Sénégal ma répété ko ma wax ko man la engagé nguuru Sénégal nguur du yalwaan nañ ñu baal ci kàddu yi nguur day wone ne man am na haute responsabilité nguur du baisser les bras nguur du céder waaw xam ngeen ni nguur gi état bi mënut a def lépp l' état ne peut pas tout faire l' état ne peut pas tout faire c' est ci discours dëkk L'État doit tout faire. D'où l'importance la com. D'où, exactement. Ouais. L'État <laughs> doit être magnanime. Ouais. Tu n'entendras jamais le chef d'État des États-Unis. Non, non, vous savez, on ne peut pas tout faire. Ils te diront toujours, oui, car. Il une solution. Ouais. Voilà. <laughs> Alors, euh, Maman si nga sànni si tuuti la comme li ngeen wax noonu rek di saluer li nga xamante ne moom initiative bi ndax président moom yàgg na koo def dafay gën a di jege askan wi ndax saa yi ko soxlaa moom dafay taxaw. groupe de média macha allah waaye comme li nga wax rek pour revenir Pa Assane ñun union africaine lan la ñu jëriñ en quelque sorte. ah. union africaine parce que bu ñu nee africain ñoom ñoo nekk foofu instant bii nii ndax du ay sénégalais kese ñoo nekk Chine am na sûrement am na ay nigérien am na ay congolais am na ñeneen ak ñeneen mais juste pour dire rek ni union africaine moom tam am na ci part de responsabilité. juste justement sa gis-gis am na solo ci euh, bile mbir euh, ñu c'est une initiative boo xamante ni euh, war nañ ko rafetlu. à c'est à saluer mm. ñu rafetlu ko ba noppi boo war cee bokk. ku ci nekk war na yee ci yow loo xamante ni mooy euh, euh, li amoon démb ci suñu maam yi. ah sama mbokk la lu ko dal waaw. lu ko dal dal na ma. ce qui lui, qui lui arrive c'est à moi que ça arrive au lieu que ñuy dem c'est bien d'aller secourir le Mali mais c'est aussi oh, important de se sauver de d'avoir une certaine sérénité alors donc ñu jëlee jaajëfal bu baax a baax Fassane macha allah saa su ne rek day ñëw ak ay actualité yu yu croustillant comme ni ma koy fara fara euh, di ko waxee lan nga ndékkee tey yow lii nii nga yeewoon non non non non non non man man lu ma ndékkee important wu ce bleu là ton bleu me donne euh, me donne euh, <laughs> mais lu tax waxu leen ma seen dress code ci suba. dañoo bëggoon nga détendre atmosphère bi xam nga bu ñëpp bu ñëpp macha allah rek. boo ñëwee macha dañu naan. Madou le bleu est troublant. le majestueux euh, <laughs> majestueux objectivement. ah. mais tu sais que c'est gros plan ci Asma s'il vous plaît <laughs> regardez Asma xool leen ñi seetaan télé bi ñi ci internet bi ñëpp regardez Asma s'il vous plaît. et on fait un coucou à Asma regardez le ah bleu oui, voilà je fais un coucou à toute la famille Regardez le bleu <laughs> sant ak ngërëm ñeel na la <laughs> alors ci noonu la ñuy daal di jublu rek ci suñu rubrique justice bu ñu waxtaanee actualité euh, dañu war a waxtaanee li nga xamante ni mooy euh, askan wi seen wareef ci yoon ak euh, li nga xamante ni moom la ñu war a xam nee nañu nul n'est censé ignorer la loi Mouhamed nag cawar ci loolu fàttali ñu tey nag mu war ñoo waxtaanal li nga xamante ni mooy recel on le retrouve tout de suite dans sa rubrique page today at www.mikeys.com. alors Yaas maa ngi lay gis ngay fecc de. non elle est joviale ce matin. suñu suñu suñu jingle bi dafa dafa dafa dafa rythmé en fait. Ah. on a envie de réveiller les gens suba teel la. gisoo tey suba ni nga ubbee. waaw gis nga. quand même non non. allez allez allez. <laughs> donc man si vous voulez mais hors antenne quoi. ah hors antenne non hors antenne. non costume bi la may taalibe. Mohamed costume bi la alors donc ñu di la nga xamante ni mooy li yoon wax ci recel. voilà euh, jërëjëf donc euh, rubrique nul n'en ignore à chaque fois dama koy fàttali euh, téléspectateurs ñu suivre du rek danoo bari xam-xam di leen xamal mais am na ci pàcc yu bëri yu askan mi dul xam souvent te léeg ñu def mbir duñ ci duñ duñ ci xam dara mbir moomu yóbbee leen euh, guuta euh, ba sax yóbbee leen li nga xamante ni mooy euh, peine de prison te loolu mën nañ ko éviter alors hier je me suis entretenu avec euh, maître Moussa Sarr c'est dommage qu'on n'a pas l'élément parce qu'il était un peu xawoon a jàpp lool ak mission face à Papa la ñu koy féliciter hier mais on en longuement discuté ci Rëssël donc euh, recel euh, bu ñu koy expliquer asma euh, du lenn lu dul di nga dégg souvent ay marché noir au Sénégal bëri na fi nga xamante ne ni ñu ngi leen di ñu ngi leen di dégg nañ ci cité ay marché yu bari mais bon pour ñu fay liggéey pour respecter leen duñu duñu tudd marché bi mais mais recel du lenn lu dul nit jënd matériel matériel mhm. bu mu mënti doon nag moo xam ordinateur moo xam portable moo xam euh, ma ma lu mu mënti doon moo xam yére moo xam jasner mu leer na ne njëg bi nga koy jëndee ci ki nga koy jënd jarul njëg boobu. c'est-à-dire mm. par exemple su ma jëloon téléphone téléphone roqee buy jar million cinq cent mu am benn waay ñëw jaay la ko quinze mille francs yow mi koy jënd war nga posé wu la question à savoir ndax. kii fan la woon mën a jëlee téléphone parce que téléphone buy jël un million cinq cent mu ma koy jaay quinze mille loolu mooy premier point bi deuxième point bi mooy fi ñuy jaayee matériel boobu ak anam bi ñu koy jaayee donc loolu mooy euh, wan nit ñi ne euh, recel amul maître Moussa Sarr ne ma boo soo gisee euh, receleur yoon di ko daan mooy day encourager kiy jël alalu jàmbur ñëw di ko jaay c'est-à-dire man su ma su damay jël sama sama bopp laa mën a jëlee exemple su ma par exemple euh, jëlee téléphone jàmbur bu un million cinq cent tey maa ngi xool fan laa ko war a mën a jaaye léegi receleur boobu ñëw di ko accepter à chaque fois di ko jënd mu ngi encouragé kiy jël téléphone jàmbur yi saa su ne. Mhm. moo tax yoon di ko daan lu bari bari. léegi nag non seulement prix bi nga koy jaaye xam nañu ne jarul loolu anam bi nga koy jaayee également. parce que ñëw ci marché marché bu nga xamante ni xam nañu ne <laughs> foofu boo demee sax mun nga fa am téléphone yu jar un million cinq cent euh, ñu mën na ko jaayee vingt mille wala vingt cinq mille ah xel mën naa tey léegi nag ñu ne ci code pénalu Sénégal ki nga xamante ni nii moom sàcc la kooku moom yoon daan na ko d'office mais ki nga xamante ni receleur la yoon dafa ne code pénal article quatre cent trente bu code pénal Sénégal moom moo daan receleur bi moo ko moo ko da koy wan tout simplement que ni waroo woon jënd téléphone walla matériel bu nga xamante ni nii dafa jóge ci wuruj wala ci sàcc walla ci agression. luy wuruj. wuruj mooy ay dooxóor <laughs> paasan. <laughs> moo def ay mbir ay looxóor. looxóor <laughs> ba ba ba daal di. ba daal ay pexe ay pexe ay pexe daal. lu bokk ak ah. du jaaj. ñoo benn la ñoo bokk famille daal <laughs> euh, voilà léegi nag euh, lii de mooy képp koo xamante ne nii asma même mun nañ ko bañ a jaay sax ci marché yi mën nañu gis ci koñ yi rek mën naa ñëw asma téléphone ñu sàcc ko récemment mu bëgg téléphone ci Mouhamed Diop def def ci man confiance ma ñëw jaay téléphone bu nga xamante ne nii yomb na lool asma dafa war a xam que ni ah téléphone bii ma jënd mën na mën na jóge ci fu nga xamante ne nii awul yoon bu ñu ko toppee ba ba ba ba jàpp ki ko sàcc asma yow bu ñu bu ñu la jàppee dañ lay yóbbaale parce que dangaa hmm. jënd téléphone ci ki nga xamante ne nii euh, du maanaam fi mu ko jëlee awul yoon exemple bi ma lay jox très rapidement très rapidement fan yi dama liir ci benn euh, localité xaw ma mbuur la Saly je sais pas où ñu ne y a une dame c'est une française qui a été cambriolée ah ba pare ñu yegg ci kawam. Mhm. une dame de deux ans quatre vingt quatre ans ci kawam. ba pare ñu yegg ci kawam non seulement yegg nañ def viol am na fa mais tout ce qui est matériel dañu koo sàcc ci këram. ah léegi nag. problème bi mooy problème bi mooy ñaari cambrioleur jàpp nañu leen plus le receleur. léegi nag la question mooy la moo tax ñu jàpp receleur bi mooy li ma doon wax léegi parce que matériel bi cambrioleur yi sàccoon ci dame bi. dañ ko cambrioleur yi dañ ko jaay benn waay waaye jooju peut-être fekkul woon seen bi duggul woon kër jàmbur waaye la fait que mu jënd alalu sàcc rek moom day wuyu ju yoon te article 430 bu code pénal bu Sénégal moo ko tënk. d'accord dañ lay dinañu ñëw nga gën ñoo yaatal parce que c'est un point important Yacine ma question t'est destinée lu tax ñun sénégalais mënuñoo boutique Samsung mooy jëy Samsung. boutique bi showroom la dafa parce que aussi dafa bokk ci économie bi ndax kii bu ñëwee tamit dinaa ko ko wax euh, bu ñu soxlaa benn matériel